سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الغر الميامين mbokk yi ñu ngi nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di gërëm jotaay bu mel ni nga xam ne séminaire la war nekk pour di fóotaat xol yi di leen delluwaat ci seen boroom ñu ngi wax ci turu Seyda Ndey Aïcha ñu xamee ko ci Ndey Aïda di doom ci baay ñi mari na ko guddi tey gii mu ñaanoon ñi comme ñoo bokk néeg man ak Sidi Arabi ak Mariane Dramé ak euh, Adji ak Daba Fall pour ñu ñëw teewal ko fii ci jotaay bi yim doon joxe teg na ko ci loxo Sidi Arabi defe naa jotal na ko Cheikh Ibrahim Mamoun eh, nee na kontaan na lool ci tànn giñ ko tànn marraine boole ko ci marraine yi nga xam ne ñoo moom ngoon ak tey gii mu ngi gërëm Cheikh Ibrahim Mamoun di gërëm ay rakkam góor ak jigéen di ñaan yàlla mu dëgëral leen e, tap tàppe seeni xol bañ mën a ànd mottali liggéey yi nga xam ne moom la seen waajur semboon ci pays bi ak ci àddina bi naka noonu itam ñu ngi wax ci turu Cheikh Mouhamad Khalifa Cheikh Ibrahim Niass monsieur maire nga xam ne moom it dañ ko parrainé bés bi mu ngi joxe ngàntam ndax jigéenam bi mbokkat ndey nga xam moo daan taxaw maire bi fii ci kër gi moom la yàlla xaw a teg tawat bu urgent mu nekk ak moom looloo tax mënuta teew ci guddi gi moom itam mu ngi jotal ngërmandeem ci Cheikh Ibrahim Mamoun ak ay rakkam góor ak jigéen di leen gërëm it ci tànn gi ñu ko tànn ci guddi gu mel nii ak ci borom guddi gi nga xam ne mooy Cheikh Mamoun mi nga xam ne ñun ñëpp xam nañ ko conférencier bi wax na ci moom cheikh sidil arab yi doon yokk na ci moom lim ci yokk xaj na keneen kuñ joxoon micro mën nga wax lu mel noonu walla yu mel noonu ci cheikh Mamoun eh, ñi ngi sant yàlla ci jotaay bi ci Medina muy jotaay familial nga xam ne dañ bëgg dajale famille bi à chaque fois occasion maye ko bi toog di waxtaan di gindeeku parce que génération yi dafa gaaw nu muy soppeekoo ba nga xam ne concertation yi war na di nekk en permanence pour que yi ñu war a jàng ci dëkk bi ak ci masira bi nga xam ne ci la Cheikh Ibrahim nekkoon ñi mën koo jubbanti ndax yu bëri ngi xew tey yoo xam ne xaj na position bi kër gi war a jël jëlaguñ ko damay seetaan benn YouTube dégg benn waay buy wax ba ne fas yu baay bi ñuy wax alhamdu fas bi moo tàggee presque baay bàyyi soixante quinze la fi jógee bàyyi ñu fi fas wi dee na 1981 naka la fas boobu di tàggee bàyyi bi fi jógee soixante te pourtant tasaare nañ ko ci réseau yi mu ngi dox traduire nañ ko sax en français te wax dëgg yàlla genre jimbo yooyu bàyyi soxlawu ko bàyyi mën ngaa wax ci moom lu ne sàng dugal ci loo xam ne bokkut ci ni mu doon waxee bokkut ci ni mu doon defee fas mënta tàggee Cheikh Ibrahim bàyyi ëpp na loolu fas wi biñ koy wàccee fii ci saxaar gi mu jógee Mali bàyyi biraloo moo ko jëli ànd ak doomam bu ñuy wax Cheikh mu ngi fii ci kër gi keroog bi fas wi daanoo c'est-à-dire bi mu dee 1981 ne nañ ñun ñoo gas ci biir kër gi suul ko fi waaw fas woowu mën naa tàgge bàyyi 1975 moom mu dee 81 ak lan mooy sensu fas buy tàggee bàyyi sax dégg naa kuy wax ne bàyyi dafa doon dem voyage bi mu ñëwee aéroport ba dugg ci Air France ñi toog lu yàgg avion bi demut mu ne lan la ñu ne ko avion bi dafa amul essence mu ne pilote bi taaral ñu dem xam nga kiy wax loolu xamul tukki parce que pilote bi kenn mënu ko tëjlu porte avion bi décoller lu du tour de contrôle bi nga xam ne moo nekk ci aéroport bi tour de contrôle bi danañ xool ci côté yëpp deux cent et quelques mètres nii nii nii ba nga xam ne amul dara lu fay romb ñu door a autoriser avion bi mu jóg commandant bi dawal Air France muy tubaab bu bay jaaw benn nit ku ñuul ci avion bi dana ko wax ne ko taalal avion bi ñu dem bàyyi itam ci tegginam ak yaram du dugg ci lu mu warta duggut xam na ne pilote bi taal avion bi loolu yoonam nekku ci moom lii yoonam mooy dagg na billet jox nañ ko place toog na nga yóbbu ko ba France wàcce ko genre yu wax yooyu nit ñi nañ moytu réseaux sociaux yi dafa garaaw du yëfi kaw kaw nag parce que kii def live mën naa mu ci biir néeg toog bu téye portable bi di wax xam nga de moom kenn fa nekk bu booboo kersa gi mu war a am dafay wàññeeku moo tax lu ko neex rek mu wax te yow ki nekk Japon mu ngi lay déglu ki nekk Chine mu lay déglu ki nekk feneen mu ngi lay déglu ki nekk fii ci réew mi sax te di nit mu ngi lay déglu yii boo gisee ñu wax ko parce que gàmmu gaa ngi waaj ñëw en général waxkat yu bari ci période boobu la ñuy génne loo xam ne bokkut ci suuf si bokkut ci asamaan si di ko wax ci bàyyi moo tax jot na man personnellement kilifa yaa ngi nii toog bu xalifa bi ñibbisee war nañ ko ñaan kër gi def seminaire wala assise assise bi ñoom président Diomaye def bërki démb ci ay justice ak nangam kër gi war na ko def parce que mbooloo mu dem ba ëpp téeméeri million ak nangam war nañ di coordonner ni ñuy waxee du kum neex rek nga wax lu la neex danga gis xale buy wax sax ne bàyyi mu ne te mën na am 92 nga judd wala 2000 nangam yow mënoo wax bàyyi mu ne danga naan dégg naa ci sama bàyyi mu ne dégg naa ci Sëñ Aliou wala dégg naa ci El Hadj bàyyi mu ne waaye yow doo toog directement rek naan bàyyi mu ne teg ci li nga ciy wax sax nag est-ce que bàyyi ko wax. bugg naa daal ñu ñaan sëriñ bi bu ñibbisee mu xool nu mu jubbantee yooyu parce que mu ngi yàq lu bari nag ki koy wax nag du ko yàqal dara moom parce que moom bës la soxla rek déglu naa beneen waay ci YouTube mu ne Cheikhul Xayri bi mu juddoo ñi lëmas ko ci mbàjj indil ko bàyyi jox ko ko mu téye ko Cheikhul Xayri dafa wax ak bàyyi bàyyi yëkkati mbàjj gi jox ko misri cheikhul xayr waxaat ak misri wal ma ne kii li mu bëgg a wax nii lu mu ci bugg <laughs> lan la ci jublu loolu itam muqaddam yooyu nga xam ne seen taalibe yaa ngi wax yooyu bëgg nañ ñoom ñi corriger seen taalibe yi waaye ñoom it buñ toogee rek naan ab dof mooy wax loolu déedéet dof dañ koy yeew dof dañ koy yeew bu génnee ci biti rek dof yi diw lay do ñi ngi ñaan jotaay yu mel nii ñi ci waxtaan yooyu parce que dafay yàqal kër gi defaru ko dara bàyyi soxlawut jëmboo dundam bi yépp dund na ko fii ci kanam nit ñi bind loxoom bàyyi na ko fii kàddoom bàyyi na ko fii imagem am bàyyi na ko fii kooku neexut a sosal ku ci amee daara nag wala muqaddam bu nit ñi topp war nga di yaraale nit ñi ci yooyu parce que alxaab yi jeex na soxlaatuñ ci dara fi mu ne li àddina bi soxla ku xam bàyyi dimbale ki ko xamut mu xam ko parce que nit ñëpp moom la ñuy wër waxuma nag Cheikh Ibrahim doomi Alaaji Abdoulaye ak Maama su jànq boobu beneen affaire la waaye maay lii maay la leen dafa am ñaari muqaddam ci Nigeria kenn ki dañ doon rivaliser am rivalité seen diggante kenn ki tuddee boppam muqaddamul awal muqaddamul awal kenn ki gis ne nag kii mu ngi may waaj a damee dame pion mu tuddee boppam xalifatul xulafaa yi ma toog këram bés ñuy waxtaan mu ne ko waaw yow xalifatul xulafaa yi ku la ko tuddee mu tudd ma ñetti nit ne ma ñooñu moo ñoo ma ko tuddee ma ne ko ñooñ dañoo déggul arab parce que yow pour nga nekk xalifa foog nga xaar xalifa yëpp dee parce que yow yaay xalifa xulafaa yëpp mu ne ma ah ma ne ko koy xalifatul xulafaa si jubluut na yaa supérieur ñëpp littéralement da nga war a xaar ba xalifa yi dee yow nga door a nekk xalifa parce que Nigéria combat ay titre moo fa nekk asadul aarifiina nangam nangam wax yoo xam ne wax dëgg yàlla jaru yii daal bëgg naa muqaddam yi ak kër gi ak surtout journaliste yi dëkk ci kër gi nga xam ne yéen a amee média yi bu ngeen tendreté nit micro muy wax wax yi kannasu yooyu tëj leen seen micro yi moo gën parce que dafay yàq lu bëri te yaa ngi foog ne yaa ngi defar encore une fois ci turu Seyda Ndeye Aïda ak surtout xalifa ñi ngi gërëm Cheikh Ibrahim Mamoun ak ay rakkam Muntasir ak euh, rakk yu góor ak jigéen ci cër boobu nga xam ne jox ngeen ko ñooñu ak cër bi ngeen jox suñ bàyyi Hadj Mouhamad Zeynab ak ñeneen ñi ñu ko jox ñépp jot na pour ñuy fexe tawxiidul xitaab ci xadra bi fexe ba ni ñuy waxee mu mu nekk lu nosu nekk loo xam ne it ki am xam-xam di analyse du ko mën a wéddi bàyyi boo ko waxalee li mu wax rek te moom daan na ko wax daan na wax ne ku may nettali li su may wax nanga mel ni mayetu fan parce que mayetu fan moom du changer li ngay wax li nga wax rek lay wax waaye wax kuy bëri yi fi nekk nii dafa xaw a bëri te man gisuma ban njëriñ la am parce que bu njëriñ loolu amoon Serigne yu def ko bu njëriñ loolu amoon Baye mbay def ko bu njëriñ loolu amoon Baye Laaj Mood def ko Misri def ko Cheikh Ani def ko muqaddam yi ci Nigéria ak Ghana yëpp def ko yal yàlla jubbanti ñun ñëpp yal nañu yàlla defar ñun ñëpp yal nañu tënk ci li nga xam ne moom la bàyyi doon doxee bugg ko éene ko itam ummatu muhammadin والأمة قصدي فيهم أن أسوقهم إلى حضرة البر الرحيم loolu moo doon mission ku mën loolu dox ko nit ñi jàppale la ci ku ko mënul waxal li nga xam rek nga noppi asalaamaaleykum wa rahmatullah